xamul ne ñoom ñaar ñoo bokk ay ay ay magati rek lañ yemul ci loolu waaye xajjal la man ci xaalis bi seen wayi yemul ci loolu waaye moom ak naa nit ñi ko may nit ñi soxna Abubakar ak Aliya Jaafar ñu bokk benn yaay maa ngi yaakaar ne askan wi benn ji lu jaxasoo boo xam ni lii gën dëgg kon su ma nee jami'an xayraat ak awil masaalih bayna yadayha day daal di nekk lu wér day gënal lañu dajale ci ay loxoom mu ndaw si. kon xoolal lii bu ko dajale ci ay gënal yéen kii ba doon gën a mooy al afraad nga xam ne afraad benn aay la woon ci yeneen ci bi ne yeneen ci da ko doon ndamoo léeg-léeg kat muy wax wax ne afraad afraad man la nga wax ni duma ko bàyyi kay dama ne ku am bàyyi bu mel ni yow dañu wax loolu la yàlla wax alayhi salaatu wasalaam Abbas salam ni ñu dugg ci lislaam sax xamee woon nañ ko foog ku dëkkandoo ak ñi dimbale ay dëkkandoo ku bàyyi woon alal na waaye ak doon dimbale ñi nga xamee ci ni ñoo ñàkk ak ñi xiir loolu yaakaar na ni loolu mooy xamul bu mu xamulee Abbas xam nga Omar ibn Khattab danañ ko yow ñu gënoon bokk ak xale yi xalaat gaa yi toog yi baa yi toog ndax yow ah baabu nga réewul ay at nga baabu tuuti ay at baabu yéex a jëm waaw mu ne ah man daal ma ko ci bëri ndax boo xam ne yow li ngay wax yëpp daanaka mbir la nga moom bàyyi ko dañ doon jaare yàlla fa amee ñu wax xam ne ndax xam ngeen ni daal jaa rasulullah lan moo ko dëkk ci ku nekk di wax ay wax yéen ci bi laa am laay sama frère mu nekk dafa ñëw ngir nekk xaar ci yéen ci naan yàlla xam ne dafa xam waxee ni kii kër ëpp nañu koy bàyyi ci côté yéen lii ñëwul ci loolu waaye jur na doom ñuy wax abdoulaye ibn abbas am na doom ñuy wax fadl ci biir fadl wax ñu naan ko ummul fadl dina arab ko ñu leen ko waxee woon ñu leen góor la am da nga xamante ni mooy am taawam léeg-léeg nit mën na ko def taawam mën na ko def tudul taawam léeg-léeg nit mën naa ñaari tàkkaatam mën naa ñaari taawam ba ñetti taaw ak ñeenti taaw moo tax ngay gis ci ilmul xadis wala ilmu mustalax al xadis wala ilmu rijaal ci jàkk xadis léeg-léeg nga gis koo xam ne ay kullaat lay am léegi benn waaye di def pour yéen sàngam def pour yéen sàngam ba ñenn ñi seet dañuy jàpp ci ñaar la ba ñett def kenn dañ ko jox man ummul fadl fadl moo nekkoon waaw am na bu ñuy wax Ubaydillah am na bu ñuy wax bu kan bu kan bu kan am na bu ñuy wax Maamad am na bu ñuy wax Abdurahman am na bu ñuy wax tamit Ibnu Habiba ñëpp ay doom la yoo xam ne moo leen jur moom Ummul Fadl moo tax Ummul Fadl bari woon na ay nit comme boo ko doon mayee baay di may moon a nit ñi xaar di soxla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam yéen kooku yonente bi yonente bi mooy borom kër ba sàkkari ko moom borom këram jiyee ci feebar ak juróom benn ci sàkkaay bi yonent bi nag moo alayhi salaatu wasalaam am nañu ko bokkal moo umul fadl muy lu baax moo moo umul fadl ñoo bokk ndey ak baay asma moo umul fadl ñoo bokk ndey ak baay bokk nag asma ci asma min ayn wa soat ñoo bokk ndey ak baay jigéen bi ñuy wax Aïcha moo umul fadl ñoo bokk ndey ak baay وكذلك أزيلا وقم الفضل يوم لا يكاي يوم يك هاي يوم يك هاي وعينيك اليوم لو أكل ياي أنا من جرمي إذا أن جعفر من يكن برم كرم قال أو بكر برم كرم مقاف علي برم كرم أسمى موم وقد أسمى بيت أمتني أسمى بيت عمي تلك نوم الفضل يوم ياي ويوم ياي ci noonu salma ak salaama ñoom ñëpp salma ak salaama ak yi nga xamante ni mooy asma yii ñëpp onaydin moom mooy seen yaay moom ñu naan asma bin ci onayd kon borom xam nga dañuy wax ni léegi nag kat yi am na yenn xeet ci bidit yoo xam ne boo ko matee dajale kat kon la war a mën a yomb te am na ci borom xam-xam yi mu awee mu ñuy wax ni زينب بنت خزيمة الهلالية صحيح النبي عليه الصلاة والسلام عمل تقني وقتي وأم الفضل من الله كان يعني عمل سبحان خمسمية مخلوق أم الفضل من الله من المخرج ويبعث في خالد بن الوليد خالد بن خالد عمر يسوع صلى الله عليه وسلم أين يسعده أين يسعده في جنة الوعي أكد yàlla yàlla wax ci kaw ñi nga xam ne ñu sirkuur yi kooku moo tax xam nga tey dafa xool xaalis ba mu yàgg mu ni ajaba li nisaabu an yarisna mislu xaalis jigéen ñi fi nekk nii gën a dañoo jur doom ju mel ni xaalis maanaam jigéen ñi mën a dañoo jur doom ju mel ni xaalis kon ndox yi lii moo waral suñu askan ñun fii ci réew bi ñuy dund da ngay gis mag ñi léeg leen bul daan yedd am yëg la nga wax ne ko yow ak li nga bokk yow askan bi boo ci féeteeloo yow rek yaa yow rek yaa njëkk a bokk ci loolu dafa baax nit xam nga dafa bokk ci suñu xel nag waaw parce que yéen si dafa jàngal nit xam aw askan ndax am na yoo xam ne bu la ko waxee kat war naa ci gën a góorgóorlu ndax ay moom bi nekkoon góor yi nangam sama moom bi nekkoon nangam nangam sa yaay nii dama nag léeg-léeg jigéen daal la koy jàpp ñu wax ko ci ay jaloore yaayam ak maamam yoo xam ni ah am naa jigéen ju ma xam yoo xam ni ba jafe-jafe amee ci sëyeen ma toog borom këram toog yaayam toog yaayam dafa wax ci taw yaram ci dëkk yaayam ñu ci lu kon lii nga mën a def boo ko defee suñu am ak la yaa ngi yëg jub mu ne ko jëm dóor leen ko ba wekk ñu ci kër buntu néegam xam ko ko dund ci waaye taw laa yaa tax ñu dund far nga toog bañ defaraat ma yeegaat subhanallah li yooyu dafay def am dox ci nit ki xam nga yow war nga jub baa nga ne biir biir bi sax nga daal ngeen jàppe isaan yooyu nag ma manqué tey ma manqué nag rek boo xam ne dañ ko xam ne rek bu ko defee noonu sama nit wax xam waaye am na yoo xam ne su ko nit ki xamee loolu dafay def ci moom ñoom waaye day si lu ñuy tuddee bañ a mus bi moom la ko la yéem naa suñu borom la woon ndax loolu kat dañuy wax ni yaayam ci boppam mooy akramul naasi abqaa ci gën a baax ay borom mu yaay xam nga mooy li ma lay wax sànq ni léeg-léeg maanaam baaxaay ci nga bopp dafay def jeexintal ci biir moom laa yóbbu sa bopp yàlla ngay sax yéen li ñu soxla te jiw li ngay amee noonu na nga xaar noon ni koy bayee ndax ci nit day wax day rabalaat la am na xeet yoo xam ne am sëb nit yoo xam ne ci xeet yi konaay laa wax nag moom nit ko nit ñi àttee ak ñàkk am yàlla diine ak ci doon doon bu nit ñi seen askan def nañ ko yi mel noonu li ci lu moom ci bis mu fàtte soxla loolu nag ci ne ñoo doon wala ci ko ci doon mën a baax xam ngeen ni kat Moussa yar na benn waay bi ñoom Moussa ak Saale bi Moussa wu naa mu firaaw na saay saay bi yar na ku ñuy tuddee Moussa wu naa mu ak yenn suñu borom yi ci biir ak yooyu ah loolu sax sax ah yow yaay ko woon ba dañuy wax mag yi nii lépp mu ak nit ñi ci am moo fi gën a baaxee doom ñu ne la parce que bu moo jur may muuna te may muuna yàlla bi moo wax sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo jur umul fadl te umul fadl nag aaya yeneen bi moo ko nag sallallahu alayhi wa sallam moo jur lu mu la xarta ah Hamza moo tax lépp li nga xamante ni moom mooy Salman Hamza fekk na doom bi ñuy wax Salman. li ñu doon ñaax ak ñi ñu xamee mooy fekk na Hamza liñ ci Abi Bakr te doomam la ginnaaw bi Abubakar xas ko ginnaaw bi Ali xas ko kon loolu ci biir la nga jaay borom. waaye jigéen ñi dañuy bëgg di borom yi nga xam Bakar sama la xam nga lu mu wër lu gàtt gi dégg rëy rëy rëy rek loolu mooy yàlla. war a mel ni ah ah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam abu bakar naa ko suñu jigéen ñi dugg koro yooyu de xam ngeen yan koro lañ bëgg koro yi jigéen ñi daal rek wax. koro yoo xam koro yoo xam ne yàlla naa nekk yéen maanaam jigéen dafa ko wax ñu war a taroo muy aaf ay borom ak ñi ngay jox sa doom mel rek rek ngay jox day def ma xam ne shadid léegi si wàllu yoo xam ne dañ ne ñoom dara saa yi ñu sa yëpp mayoon doomam nga xam ne bu ndogoon du am bu waree doom du ndogoon. gis nga te bu leen fàttali saa yi ñu mu sa yëpp loolu am yéen ñëw na ni ci doomam bu bañ ba am yéen bëgg ko seen xol ñan xaw na ba tey taw ay yàq bu bañ liñ ko laajee sax nga bañ ni su fekkee dinaa xam li ci lal yan yi fanaan lal yi wóor waaye ngir yàlla mu laa waaw léegi ñun suñuy suñuy suñuy doom ñu dóoraale si ñoom loolu. ndaw ñi nga xamante ni moo mooy yaay kul fadl kat wax dëgg yàlla am na ci ay ngëneel loo xam ni bari na lool moo tax ñu am ay ngëneel dañ ko dajale si benn léegi nag nag moom yàlla dafa màggal ay doom ndax ñoom lu yàlla lay wax ci shahadat nabi sallallahu alayhi wa sallam لأن يعني أنا الأنوار الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عبيد مؤمنة. لأن يعني أنا أم الفضل حق ميمونة حق سلمى ak Asma bint Umays ñii nga xam ne ñoo bokk benn yaay yenn ñi bokk nawet baay mu ne mu'minaat xadis bi moom na tay sax na ko sunan xaakim si mustadrak di leen ci Abdullah ibn Abbas Cheikh Nasrul Albani kon loolu lii de wax dëgg yàlla ay gëneel la yoo xamante ni maanaam ñoom ñu ko doon dajale dajale ci ay gëneel bëriwul sax maanaam dañ doon fekk ñu si bëgg bëri ak ñu fekk moom lu si waaye xam naa nga xeeb ko kon shahaada bu mag boo xam ne rëy boo xam ne yonent bi moo ko def alayhi salaatu wasalaam ci doomi ndaw soosu. jamono bi nga xam ne yonent bi mi ngi woon alayhi salaatu wasalaam comme ni ma ko waxee woon sànq sëriñ la dugg ci lislaam jigéen ci dëkk wuy comme ni ko imaamu Zahabi di waxee ci siyar mu ne lam yuslim min an-nisaa ahadun qablaha yaani Xadija summa baada Xadija amul ku jiitu ci jigéen ñi ku dul Xadija waaye bu Xadija jàllee ñu ñëw xam ngeen ni ñooñu jëkk ñi am na ñu gën a leen xoolal suñu borom yi wax wasaabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina yàlla nee na maa ngi wax am na tudd ak ak ñeneen ñi gaa yi nga xamante ni ñoom ñooy ñu njëkk ci dem njëkk wuy ci muhaajir ñu am faa yi ak ña nga xamante ni ñoo leen topp ci ginnaaw bi di rafetal yàlla gërëm na leen kontaan ci ñoom ah mu ni waaw te waaye leen àjjan la yoo xam ne day daw la suuf ay xewle suñu borom dañ may sax sax amul génn li ñu ko war mooy danaa kontaan ci ñoom dan wax loolu suñu taw la lii kon day wane keneen yi nga xamante ni saa du buum saa du buum suñu borom day xalamu kon bu muy fadal daal ñu bëgg a wax mooy ci dëgg yàlla dina ànd ak yi yëpp nag nit ki bokk ci askan bu baax nga war a mën a baax fekk ndax ñu góorgóorlu dañuy tax kon naa ñu xëy si nga xam nekk ne yéen yàlla muy sallallahu alayhi wa sallam man fadl akhihi hadalu lam yalshaq bihi nasabu ah bu kàkkan ba tey jaamu yàlla tax laa faaxe saw askan lu mu war bool sax nga rafet kon loolu ci askan bu baax rek la lay ci imkaan yàlla la bokk waaye ci loolu rek taxul baax bu mul fadl nag dafa war a ñaan yëpp lii jigéen ñi dañu ko bàyyi xel bu baax te loolu mooy jubluwaay waxtaane ñu saxaaba yi kon war na mu xamal li ko yàlla war a tëgal si jigéen dafa am kiiraa ni sama sëkk bu ko yàlla war a tëgal doon kër kan mooy nekk sama aay dina rek gis samay doom ndax bu nee naan rek ngeen jiw bi damaa ragal doo rek mën tànn aw si yow léegi xam ne jigéen war naa xool kan bi di tànn ko dem di tànn ka teg lii daal mën ci dëgg bëri yii dafa bëgg sa makkat nga fegal fële yii dafa makk fegal fële yii dafa dafa fegal fële yii dafa bu baax bu baax yii dafa am ko daal loolu muy def bu màggee ba mu daal di fële bu yàgg ba mu daal di fële bu bon ba mu daal di fële yéen bu baax kay jëli loolu si gën def tey noonu la ko am saalax doon tàmbalee leen boom boo ko daal di xel ci ngeen dem tax ni ko yàlla bàggee la parce que laa xam ne ci ngeen yii ngeen yëpp kon lu bëgg na mu baax daal lépp dañuy la arkeeral kon xumul fadl jigéen la woon ñoo xam ne boo xool rek ñu mos te bëggal ma xam sax nag am nañ borom xam-xam ñu wax ni bu mu taal room saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen bëggal dafay jonkan di jox ndax dañuy bëgg dara dama ne bi leen ci woon na lool jamono jooju mooy jamono ja nga xam ne islam amagul doole ji xool ñu la ko mu ko taw xam nga yéen sax la booba ñu ko ci ci magal nañ ko jël waaye ka tay ci madina ndax naa boobu ñi nga xam ne xam yu ànd la woon mu kar ci li ak na la tam dara xam nga li gën a metti mooy waa xam dafa jëm ci nga ay ci bu wàccee Abdullah ibn Abbas dañu man ak sama yaay da lañ bokk loolu la ko imaamu Buxaari indee ca kitaabu tafsir ci Sahih mooy wa maa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili llaahi wal mustad'afiina mina ar-rijaali wan-nisaa'i wal wildaani allaziina يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Subhanallah. Ini mana? Ini pakai istilah subhanallah. Ha? Haji nak kami sini punya dia untuk ni. Ibu ni haji sini. Ia kami sini nyom kan mungkin nyom kan. Wah nyom nak ada sini nyam. Kali nyam punya subhanallah. ay tool nga fi dëkk bii kat ay tool kat ñoo fi nekk ñu dugg ci seen ñu dëkk bi ñu seen bu tool nga nekkul day na nga ñu defal limbal waaye ko ci yow day ñu ngi lay ñaan nga nekk suñu Abdoulaye bin Abbas mu ni kuntu ana wa ummi min al mustafa ana sama yaay yi ci mustafa ko ñu leen bokkoon ndax ma dëgg yaayam yéen naa gàddaay noo ma ko waral mu koy doon gërëm dafa yéen la tuub am ñu ni yéen la tuub daa tuuma di ko lëbb ala kulli xaal wax yu bari nag waaye lu mën ci am di yàq naan gàttaay loolu bokk na ci li ko metti lool ak lan moo tax saxaaba yi dem jege leen sabab bi kan ci rabi yatu kenn bi moom mu nekk fii ci màkka loolu de màkka de bu baax la wala yéen ci nekk maa ngi xam ngeen am lay nax dara ci baax la mu ci màkka la gën a ko mooy ak am waaw am lay nax dara yéen ci baax la moo gën loo am lu la màkka la mu ci féete moo nekkoon fóore màkka ci mu delluwaat dafa la xamante ni fa la kesaani maayam ak yi gërëm ak yi lool yéen saa yi dara bu bala ni mu jógee jógee ñu gàttaay bu koy xool mën sa gàttaay ndax li tax mën sa gàttaay mooy mu ram gërëm ci àlla ñenn ñi dañ ñu tuubagul ñenn ñi ko tuub na waaye du nëbbu lislaam su ko defee mu xoolal am ak njaaxare lool parce que mën sa gàttaay waaye ñu gërëm gërëm day mën na nekk waaye kat nag xoolal ci ngëm yàlla gi mu am loolu mooy nekk sa leneen lu islaam waaye ñu def ko te lu am solo lu bokk xam ngeen ni borom kër nag soxnaam mën nañoo wuute léegi jëm aay dina nga gis koo xam ne suñ ma yëg si góorgóorlu si waa ko wax borom kër ñu gën moo xam loolu danger la góor mooy am xawaam yi yëpp mu ci soxnaam day yokk waaye sa jigéen ji li ñu ragale woon yàlla ak góorgóorlu ngeen kër bi dafa yéeg woon ci ñoom ñoo doon def yéen yi nekk ci ñu borom kër ndax nag boo toppee ci yaram nga gis ay téeméeri téeméeri jigéen yoo xam ne yéen day ne ñii ñëwoon sax seen i borom kër buub yéen seen i borom kër buubut waaye mënul dara dana jóg dund ñii far ñoo la xam seen i borom kër nekk ay war xam yaakaar naa ne bu mu solee nga def abu talxa def na koy wul kon loolu bari na lool law ñu ne umul baxal ci jàmbaate ci góorgóorlu gi ci ragal yàlla gi ci sellal gi ci topp njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam yéen ñoo ko ci àmba tuubut waaye daa mel ni ku tuub tuubut waaye daa mel ni ku tuub lu ko waral mooy teewoon na sa lóbi ne ko def ci ñun ay jéem bokk na ci li ngay firndeel nga am ci naa leen mooy nit li ci tën la fay àlla ak saaniya muy yonente bi xam ngeen ni balaa woote madina waa aj na ñëwoon nañ si dajeeg moom si aj ka biñ dajeeg moom si aj yi mu gaaram leen lislaam gaa yi nangu ñu si ñangeeg moom ay accord yoo xamante ni day ñëw Madina bu ñëwee danañ ko dimbali gàttee ko comme seen bopp si dëkk bi gën a gàtt ba loola amee yonent ñi ne bàyyi ba xaaj xam ne lépp dëgg lañ rek bañ doole ba saaji ko ci kaam nee na naka naka sàlla lu ko sàlla wax ko ko nan ma xëyee ci picc yoo xam ne bu ñuy def ne ay inkam inkam yi la ñuy bëggul ku la dégg nee na nit ñu ngi jox mocce ko naan yollos yollos yollos yollos yi naan ñu ngeen di guddi mu ni kunna salaata wa sabuuna rajulan matoon nañ juróom ñaar fukk ak ñett soixante treize personnes mu ne wa inna ma ataani min nisaa'ina am na ñaari jigéen yoo xam ne suñu jigéen lañ dafa ci xaj xaj bu jigéen ala seen juróom kër ala seen doom ñu war leen a yellam am ngeen coono yi ngeen dugg seen ñu xanaa ñu wóor leen seen ay jigéen lañ waaye ñoom dañ la yàq ak wala tamit dafa am rek Allah ya taala ñoom it lii gaa yi bëgg lañ bëgg ñu bëgg yàlla gërëm leen moo tax mooy say ba demee ci gaa boobu mooy umu amiya ak umu amaara lama yooyee am na yeneen jigéen ñi ñoo asma bi ni amri ni abi ci lañ bokkoon ak yàlla ñoom ñëpp bokkoon na ci ñi teewe ñu nekk ci ñaar ñi bokk ci seen ak dafa yi nga xam ne bokku ci seenu xeet waaye ñi ci gëm yàlla ñu rek bokkoon te bi ñu dajaloo ci yoon la yoon la dafa dajaloo nekk juróom ñaar fukki nit ak ñett mais nag dinañ jéem a jëkkëre seen dina طيب ده المدير يصدر من حد عباس احلاته فكرة الموضوع ده لازم يلف الاثنين يخرج يكشف ان انت عايز اي ولا دماغك ولا كبر دماغك ولا لون الدليل شكرا لك فاهم اللي خلاص فقال لي شيء اسمه محمد حبيب واللي بيكلموه حبيب الشيء والله يعني عمل حبيب هو ليه من عمل ايه في واحد عمل ايه mooy li mën nga kaa bañ a boole waaye tamit mooy xaaj bi donc moo tax ñu ngay xaaj ak ngay yegg la ba noppi daal ko ci lu ko téye lii nag daal lii lañ daa xam ne amaat lu gën a kaa donc ñu ngi gën a lii la ci kàddu mu ni yéen yéen yéen ci alpha adra booba ñoom ñooy ñu ñëwoon mu ne leen yéen ñi kat xam ngeen ni Mouhamad day ku ñu fonk la sallallahu alayhi ku ñu jox la gërëm digal léegi nag ku ko mën sa aaj buñ jiit ay mbokk mën na saa aaj kon nag li ma leen di seedeloo mooy su fekkee ni wéttale bi bu ñëwee Madina di ngeen ko saamu jàppale ko yërëm ko dimbale ko ba saamu yàlla su boobaa lu xetal na ngeen leen ànd ak moom waaye su fekkee ni su ngeen ko yóbbu Madina du ngeen ko jàppale bàyyi leen ko fii ci ngeen xam ne ay mbokk ñu ko jàppale waaw bëgg nga jëlee bu ko dégg da ngeen def aw bokkal sa biir moom wax loolu su bëggul mooy lan ñu kon ndaw si kat borom këram soxnaam am na lu ngeen ci moom yéen a toujours amee ay taal yéen a tamit daal di kontaan lool sallallahu alayhi wa sallam ñu wax kat ñu daal di gis kanam gi commencé di leer loolu kon ci la gaa yi daal di seede ni ñoom kat parce que yéen a ñoo jàppale yéen a alayhi salatu wa salaam lépp lu leen di seen mbokk di laaj seen déreg di mbokk laaj yéen yéen a alayhi salatu wa salaam yéen a leen waaw loolu kon moom mu xamal xeet naa leen ci gàddaay xale yi xam nga borom gërëm ci am daal mooy xam nga ni ginnaaw ko la ko day bi yéen li nga xamante ni yéen ci xale yi salaatu salaam ñëw na ci màkka nag loolu rek xam nga lu ko loolu rek xam nga xam nga ko ba mooy xam la jooju mu doon fay mu am ñetti fan ci màkka dara la wata wax naan soo suñuy wax may muuna nga xam ne moo ko mën sama ñu wax ne ay xam ngeen may muuna dafa amoon borom gër bu ñëw abu wóor mu ngi dina am ci la amuloo muy kàddu dafa daal ci yéefar ji la dee ngay mun a waa naa ba sonn mu dëgg bopp rek ba dee ci yéefar ji li mu dee ci yéefar ji Abbas ni ko comme yow may dee ci sama xam ngeen Abbas mu doon dee ci umul fadul te umul fadul moom may ñëw ñu bokk ndey kaay mu ne ko comme sa loolu sur faal la te man maay dee ci sama da ngay ñëw ci ci sama ndax wax ko mooy bokkoo gi ñaar mooy jub yàlla di tamit loolu bi nga xamante ni yàlla bi ñëw la ñoom ko gumul fadal am na ak ñu demee loolu ñu xamee ndaw ñi kat gërëm gërëm saamu na te fekk am yéefar la woon ci la laaj yonent bi laba sallallahu alayhi wa sallam ndaw suuf si maymuna ci la ko yonent bi nag alayhi salaam loo tax ñu ne la ko maymuna bàjjan la ci bàjjan la ci lay tax daal lay tax daal loolu tam ñu gis xarit ñu ne daanaka faral di ko jéeg dana faral ci biir kër yi nga xam si ñee di may wóor si fekkee mu daa ba la ko waral mooy kër màcc na léegi su ko defee boo mën a teel naa di gàttaay moo tax ñoom seen gàttaay bi di loolu la jot ci loolu yéen lu ko ci xamay umul fadl ak may muura ñu ànd ak Abbas ak yeneen liggéey ak gone yaa ñoom yëpp ñu xaar leen ak yóbbaale ñoom yëpp ñu dem ci Madina ba nga xamante ni fa la yeneen su nekk alayhi salaatu wa salaam kon lii boo ma xoolee da ngay xam ne may mun a kat am daawam umul fadl kat am daawam yàlla na waaye nga jëli rëy la xal tax na ñu fàtte ne subhanallah alhamdulillah kon kon lii ci yéen ñu meroon xam nga Abdoulaye bin Abbas lan moo tax ba fanaan biir kër yonente bi alayhi salaatu wa salaam mooy ñaareel na ngay wax ni ko xam nga am na jaamu yàlla yonente bi yoo xam ne ci la doon kenn ko gis léegi da ngay dem dem doo sama kër bàjjen lay fanaan xam nga xale bëri ngeen sama kër bàjjen lay fanaan subhanallah bi nii nii man gaal bi ay kii daal di waaye seen côté yëpp nii ko defee lu tax li mu maane ci biir léegi day xam nan la yonent bi naan la ko sallallahu alayhi wa sallam soo defee bi moom di yonent bi naan yi loolu sànkam na jub naa yi ne naan ne sax man jub naa ni fekk ni ko naan bi ne ma ñëw taxaw ci côté ngay jooram mu naan ne ma yéegal yàlla lay ma ca kenn naa nga ni jaarale ko sama kanam parce que boobu saagir la war a mu jaarale ko ci ginnaaw teg ko fii nga taxaw mu ne ko def fekk jigéen ñi doon def yu mel noonu jubluwaay bi ngeen lan ngir mën a am yenn jàngale yu yonent bi alayhi salaam yoo xam ne xaw a am liggéey ko nawet foofu kon xam nga daal di yéen nëkk la ni am ay jeexintal yu rëy rëy ci lii nga xamante ni moom la umul fadal doon def ci daawaam waaye xam ngeen ne umul fadal kat jigéen la woon yoo xam ne kaanat shaghufatan bi fadli xëy doon na ci bàkku xam maanaam xoolal ma doon gis ay yow suñ jigéen ay lay moom li may wax gis nañu ci maanaam la ko dafa léegi rek faju ndax day li gën a tuuti tey mënoo gis jigéen bi la ko jàkkal Allah ya nawi mana bikin mana berjasa. Dan Al-Quran itu yang hadir letak di bikin mana berjasa. Semua ini itu dalam ayat boleh ya orang yang tinggi ayat ulama dan contoh orang yang ham-ham. Yang lain jika mana yang kita ada di salat salat kaki jika mana yang kita ada. Kalau orang yang itu banyak waktu dalam hari Al-Quran Sunnah. Mereka itu Bukhari Muslim kita salat hadis mereka Allah Subhanahu Al-Quran. Itu Allah. yaay Abdullah ibn Abbas ak war naa mel ni lii xam ngeen ne léegi jigéen doomam day def jeexital ci moom borom xam-xam dañuy wax ne gis nga jigéen ci gëm yàlla muy góorgóorlu ci jàng jàng alquran ak li gën a rawatina ñu tëral diggante yooyu damay def jeexital ci doom la jeexital ci doom loolu nag am nañ ko waxuma ne borom xam-xam yi di ko wax waaye ay ay jox nañ ñooy xam loolu de jamono jii nga xam ni di leen da ngay gis xale bu naan dafa am juróom benn at moo ko wax wala juróomi at xale bi boo fekk noonu ñi nga xam ne ñooy gëstukat yi dañuy dem ba dañuy jaaxle ci loolu waaye ñi nga xam ne ay médecin rek seen xam-xam màcc ci doomu aadama ak ay ay système yi muy dérouler ak xelam yi muy màccee dañuy wax yu mel noonu nga xamante ni farlu ci yaay la dafay def ci xetal ci doom ak li dul dégg ci dul dund maanaam bu dégg li ñuy dund yëpp kon xam naa xëy na loolu ñenn ñi nee nañ tuuboon na ñenn ñi ngi tuub waaye wax naa ko lu ma ci am li gën a dëgër moom mooy def tuubul ci balaa maanaam su mun na yéen saa waaye dana laa xam parce que lu tax mais li ci mi ngi gën a xat la boo xool ñaari moom mooy am na dëgg boo xam ne yow dëgg ndax day lekkee faral la si sax lay wax ci la léegi nit boo ko xamee boo xam ne boo ko xamee kaw nga xaw a laaw yoo ko xëy na ba xaw a am soo rek li ko waral mooy gis nga yi mën ko bañ a dégg léegi demoon nañu yéen ba itam ñu ngi indi xaalis xam naa su ko jëlee ci loolu gars yi ñeneen sax ma badara dañuy sax bu badaree dinañ xam ba xam moom yeneen bi la gëm wala gëmul yeneen bi alayhi salaam badara def nag gars yi boo dem ci seen biir yi ñoom ñëpp dafay dem la xam nga bu dem bala di leeral yeneen bi saa bi mooy gëm léegi ñu ngi defee am naa am naa ci yenn malgré que dañ ko former ndax noonu la ko yeneen bi waxee alayhi salaatu wasalaam loolu bi mu génnee yeneen bi woo saxaaba yi ñu ne ah weer bi kat am na ko ci bokk ci dugg weer bi am na ko ci bokk ci dugg mais en tant que sama xaay dina gis moom dugg rek allez moom lañ ko wax saxaaba yeneen bi nee nañu xam loolu su ma defee ñu naan ci dañuy bu dajee yeneen bi naan bu dajee xam naa rek naan ñu koy bàyyi ci bu xeet rek ak yeneen bi dañ ko wax waaye li mu si rek mooy dañ ko jàpp jàpp li mu si rek mooy dañ ko jàpp jàpp léegi li ko jàppee ñaar lay daal ak yëngal ale yësru saxaru masalan mooy nit ñi ne nee na gis naa Abdoulaye na am naan yaram magal ñu ngi taxaw dooloon na ñu wax ñu ko ànd bi sax ñu ngi xëy di taxaw donc kan la woon yoon ka saw xam ne boobu la ko dëgg yi noonu Abdoulaye na am naan noonu la noonu am naan meloon te mi ngi mel ni taxaw nee na waa ko di day daal mi ngi taxaw waa ay ñaar la ñu xaar ñaar yi ko jaagal yi sax moom di bàyyi ci sax la ñu xamale ci ay ñëw yem ak dem loolu dafa métti trop day saan xale yi nag nee na ma ne ko yow daal dëgg dëgg yow daal dëgg dëgg amaa yow nag yéen nag lu mu doon amaa moom ñu ñëw fii di dëgg ba yow ngay bàyyi parce que ngay demee ci ànd ak yéen ngay ñëw ci xeer ak saxaar yi nga def ci lu mu doon nee na mu ngi cee fekk doom tuub nee na bi yow amee ma daal di koy jàpp andi ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ñu yegsee xanaa yéen su ne maa ko jàpp maa ngi ko jàpp boo ma ne jàppoo xëy na ma jàpp suñu jëm mais bi loolu amee yéen si alayhi salaatu wasalaam ya kon nga xanaa am malaaka moo ko jàpp dégg xale yi su nee na ma dama jékki jékki ba mu yàgg mel ni benn waay koo xam ni moom doon na ca kaw rafet ci avant kaw xay ko bi naan lekk ko mu naa mu naan dafa naan dafa ko mën a yëgal mu am ci moom dañ ko ci nee na ma fii laa fekk ci fekk yéen yàlla bi ne ko yàlla nga moo yebal ak malaaka bu ñett ñu yombalal la ko ci say loxo ko ñu koy xam allahu akbar loolu la nekk booba ñi ngi dikk sàkk ndax ndax suubam am na wala amul loolu li muy wut rek muy gëm yàlla bu nekkee ci moom yàlla dina ko dimbali ak moo tax mu ne ko laqad aanaka allahu alayhi malakun karim malaaka mu ñett moom la yàlla yebal mu ñëw naa koy dimbali ci ka Sekarang kita pernah jadi nyo siapa akan kaitan? Ujian mereka akan manusia dia. Dan juga ada yang salah salah dengan sahabat ini bohong ini bohong dengan. Sekarang kita sahabat ini kuat. Dia dia lama teman mau bela. Ini kalau kita mampai jadi manusia dia. Mula pun sila sahabat yang tadi bayi yang tadi pun jadi sila yang Allah. aga boobu nag li mu amee rek ginnaaw si loolu nag ci la bindee tàmbalee fekk nag léegi nag wax dëgg yàlla li mu amee nag kii nag moom li mu nekk wax dëgg yàlla yaram si dëgg la dëgg ndax jigéen te kara koy am laa xamal kaa ne jigéen day jigéen bi moom kat lu mën a yàlla ci alayhi salaatu waaye loolu yëpp nag mi ngi nekk bien que dañ ko góorlu umul xamal wal fadaayil umul xamal jigéen la moom di yaakaar jigéen la joo xam ni xam nga léeg-léeg boo déggee jigéen ji man borom sax ngay waxal ne yéen yow xëy na sax dalay faral di ñàkk wax dëgg yàlla jigéen joo xam ne yow daanaka sax léegi la ci may ndax yéen doo mën xaaru yaa di waxuma la sax xaaru yaa daa daa daa yaa di ah ñooñu ñooy waxal daanaka wax yi wax yi di wolof yi naan aw nit daal la koy wala xam nga nit moom daanaka moom bu mu bu ko sut rek dafa yaay yoon te li nga ne ci mën na ko rek yoon loolu mën naa am mooy aw nit la koy yiw loo ci def loolu jigéen la woon ci jàmbaare loolu la ñu la koy wane ay kirima xaw naa yu kàmba mooy nit ki nee na abu raafia abu raafia nee na man day am surga laa woon ci abbas ibn abdul nee na suñ kër gi la kër gi laa tawal ndax buub la ma buub umul fadl buub wala yet buub ak ñeneen ak ñeneen waaye abbas li ko mayoon sens mooy ay bokkam dañ ko war a xamal dañ ko leen wax respecté ko parce que kii di bëre kaw xam boole may xaar ah nee na bi ko xamee nag waaye nag kaana yag sunu islam da doon la dul islam ak yëpp di ko lam bari woon alal la léegi mu ne amul la garab na la dafa taare amul la xam demul ba tax waaye ñoom bu demul ba rek da ngay yemale sax amul la xam demul waaye dafa yemal xanaa ibn Hisham ibn al-Mughira moom la yabal ni ko demal ma te it nag yeneen yi dem yëpp dañ doon yabal ku demul rek da ngay am koo yabal ni ko demal ma wala yow da daa am gàtt léegi bi loolu amee moom am waa ya mu ni man nag yàlla def man damaa tuuti woon lool lii woon doole xam ni ñoo seen bind amul doole mais dama doon def ay kën di yàq ay kën di kën la ci tegal li nga ko waxee man loolu benn kaaba ji benn nit yëpp samay kër la ci léegi rek yéen abu la ak ñii nee na bi ngay ñëw boo ko xoolee mu xaabal xaabal ñëw ci nga xam ne ku fara gi ñëw ci xarkam yu bon nee na mu ñëw ko ñege mu ne toog bon ak gannaaw nee na bi ñu toogee noonu nag moo la ne waaw bëgg di ñëw ni amul di àll abu la ñu wax ci laa xam ne abu su yaa daal di ñëw boo fekk tuuba bu daal di commencé di ko nekk ci mbir ma nam demee fanaan Abu Sufyan mu ne ko man daal dana xam bakar daal sa waay bi daal nam nam maa la ko defoon rek dem naa waaye yow ñëw ci fekk am sëgg ni ko ci moom ñu ne mooy ko daal rek ndax ay moom kan ñooñu doon xalaat ak ñoo ñoo ñu nekk yoo xam ne boo ko kan bu bàyyi am naa la mu ne kon dama laa xeyaa nga ne dina ne comme dama laa xeyaa rek am xam nga loolu dafay metti Allahu akbar dafay dëgg de nit naa kay moom kenn li doon ñu amul na ba seeni mbokk te xaar yi ñoom ñëpp bokkal la muy dañoo mel ni mbokk loo xam da ngaa ñëw ba ci kanam loolu rek te lii ci kaw mu ne ko mooy dama yegg saa yi loolu jàmbare waaye dafa ko tey moom daf yoon am damay def ci ci al sax da daal wax ko doo ci neex te doo xam na ci la kan xam la jóge amu naa kay wani dañ ma yëkkati dama ko ci bëgg ma ni ko man man bu baax loolu rek daal parce que ma laa xeex rek mu daal di xaaj ci procès bi ñu dund dóoree yëpp la ma defee dañuy mais yow la loolu mu daal di ñëw ci ma yow ci rek sama xel bi day daal li ko naqari amul ànd tegu ko ko loolu la ko wax li la naqari tegu ko kii la ko naqari amul ànd tegu yéen a mu ci ma ci ma dóor dóor yi metti yoo xam ne foofu laa naroon a jaaree man laa yaa li ci ay mu gumul fa la man koy ci moom la gumul fa la wéeri jël ko rek ñëw rek xam bañ ko ko ci ci ci moom mu ko ko ci moo ko liggéey lu doo xam ne subhanallah nga xaaj xaaj boo xam ne dañu xaaj ma yegg ci yàlla xaaj mu yegg Abu Rafi nee na keroog bu dul ummul fadl booba laay jaay defal naa nga xam ne ni ku néew doole koo xam ne dañ laa dóor benn koo xam ne nga yegg waaye la ummul fadl yi ci nekk tudd yooyu rek ñoo rek fekk ko rek yéen ko ci ndox affaire boobu moom yéen ci moom bi ñu tuddee doomu robaane man sax mu gën koo garaaw na ndax mu gën a baale mën naa bañ a waale waaye boobu ci aadata lañ koy jógee borom xam-xam dañuy wax ni moo gën a garaaw sax rek yàlla waxoon na ko ne lan la la ko doon ñett dégg na ko te mooy li am ñaari mooy sam doon dóor dóoru gën a métti ñëw na ci kaw ñetteel bi mooy amourant ne ne juróom ñaari fan la jotee nga waajal dem àllaa ndax góob ko waa góob bi mujjee affaire bi di xeex di xeex di juróom ñaar di xeex ci biir mu ne subhanallah wala yàlla mu lay tawax yàlla sa ko wax la ay doom sa mën wuñ koo suul ndax ñu ne dañuy bañ laal mu wàll ndax ci fan lañ ko bàyyi ba muy lëpp ci biir benn waay mu ñëw yéen seen baay ak ñi ñi ñi ñi ñi leen ko xormaale ak ñi leen bëggee woon mu ñëwee sa ko wax jël nga ci ban bi ko bëri kumberegal kumero ngilan beregal ci sal bi yoy ngi def ñi ko bërek ñi ko bërek ko ci montagne rek nga jël nangu baraako nangu baraako ne li ma koy nangu kenn nangu ko naa ci rek wal ma ci en ay la ñu ne yàlla bu ne xam na ila adina adina xam ya ko ci jàng ni bala ma xala ni ben borom xam xam da xol ta ko ci da ko yàgg ni dëgg dëgg lan ci su ma xamul woon leer bi du ma koy jëndee lu dul tàmbali daa rek dem naa te fan waaye moo xam ne bi jéewal jëre si tànk bi tudd su naan la faatoo yàlla ni ko yow sawar a ngay def xam nga ne amul la su tuuboo rek tàmbali daa yàq amul la bu doon tuub rek tàmbali daa yàq ndax bu doon tuub mooy kon yàlla li mu wax ko ne du gaaw xam nga li nga doon wax looy yàq waaye l'islam du ci ay feneen dara li mën nga fexe ba tuub ويريد الله ان يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يتحرك والله كثير من اليوم da nga xam ne amee ci ku nekk ci wala dugg ko rek wala saa yi nekk ci mooy tax la ñëw ci déedéet déedéet yàlla moo la ñu boole ko bokk ci lañ wala suñu borom boole ko bokk mukk suñ ne ñett ñoo woon badal ak boo xam ci yii ko yéen ñu la gën a dëgg fa nga nekk ñoo xam ne ñi nga xamee ne yore ci li ñu wax dëgg la wax baax la la xam nga ñoom ñoo xam ne ñoo leen gën a xam ni wa jaxatu biha wa tay xalada am ko su ko jël yàlla bi dañoo maye waaye xam nañ ni yéen yore ci sa mbaa xam yàlla gis nga yàlla moo wële moo tax jigéen bi mbokk yi ci biir wala xam man am laa bu tey bi daa xool ci sirat al mustaqim ba mu yàgg muy فاتحة فاتحة الذي فينا سحر يومي كل ما يهدي الصراط المستقيم نعم يوم في بعض نعم يوم في بعض فليش ما يمكن أحد ما كان يريد لا يجد الهداية يهدي الصراط المستقيم نعم يوم في بعض قال السبيل الذين يهدي الخلق السبيل الذين يهدي الخلق الخلق يهدي الصراط المستقيم نعم ñu xam li muy ñaan lan la foofu ñu gën a def concentré moo tax balaa mbir gi dem ndox yi ma ne leen gis nga boo seetloo moccal moccalu moccal sa bopp li mu gënee moccalu sa dëgg génn dara la nga xam ne yéen a ko gën a xam ni waa ci feebar yim am ñeeri ñeeri yi ko mocc yim muy ñecc laa xam ne li muy wax dana waaye parce que metti waay am sa borom ak li ngay def ci yàlla day gën a yomb metti waay am dañuy xaw a doy xale la dellu ci yàlla metti waay am li ngay wax dana yitteel wala ndox mi kuy tëdd si laaj xam waaye dama wax yooyu dale ci yow mii moo tax doo wér lay dana lañ ci fekk كل كده طبعا انا هقول لك عليه طبعا وده وش الموضوع لا ليه عمليه مش عليه وقت دوك مجبري خلي تضع لي عين اخاف عن عين مرة جبري تبقى كل من كل شيء عين الله يوحنا كده يدين هو الأظن إن الناس بدك كيف تعرف الدواء من الله التسليم في من إماء محمد يجب عليه الصلاة والسلام الله أكبر هي مجرد وأعلم بكيف تسليم الله يسبب أن يتحمل الخير والنفس تغيب الدين تغيير نفر الحريات عن نجد الله ويقبل تمرك الدين أن نعم محمد يجب يوزو جدا يجب أن يتعلم عليه الصلاة والسلام وقال لقاء مدور الدين ثم بقى بدور الليل وحمد الله हमने भी ये अलग जीवन की कृषि के चालू जीवन कृषि के चालू हम तो हम लोग जी मेरी जगह पर बंदे को जाग गए जी सूर्य इसलिए सूर्य यूसुफ जी वाच जब अपने सहारे हम निरंतर में कुमलम की लेकर कथा है वहां चलो और बदल दिए जी जब आशीर्वाद की तरफ अपन बुखार leen yàlla wàññi leen saa woo xam ni sa sopp ci mooy yuusuf te yuusuf sa ay mbiram ma ngay tàmbale ci biir ndax ku ci biir leen jëndoon ak weer nag weer waa tax na di suñu kan kon biir nag waa su ñuy nekk ni dafay gën a jox encourage ci bopp biir nag waa yi tax da nga leen ñooy comme ay juróowaay la yu am ci xisa bi ak ñu naan saaba yi ak yaram yaram yoo xamante ni am na sax ndax xam ngeen ni yusuf lu bëgg a def ba génn ci biir kaso ba génn daal na nekk Pero que tipo se continúa haciendo, que una de las veces, sabe bien. Y se va a hacer. يجب أن يقرر ويرد عليه الصلاة والسلام أي موت لا تنيوم الفتنة الميلة والصحابة يقول الرمان يوعد قصة يوسف يجيز يوسف أي موت لا تنيوم وشام صحابة يجيز سيرفا لكي موت من لا يتعيش ولا أجل لله الله موت الفتنة لما يجيب أن يفكروا يجيزهم يجيزهم وخمي معنى موت الفتنة عليه فنوحي من أم الفضل إلى ينبي صلى الله عليه وسلم عن يمر حمدني وابتساني نبي حاجنا إليه وابتساني نبي حاجنا إليه وابتساني إذا حمدني مبري وكين نور أم الفضل وأمير لو كان أنا بقول لي محمد يوم ينزل فيه وفكرين ci la ko daal indi ba nga xamante ni mooy ci tëram moom daal ko tàmbal daal di fii yéen ak yéen ci maa ngi kon umul fadl yàlla baaxe ko nam ci ay ngëneel yu bari comme nii ma la ko waxee nga xamante ni kat bokk na ci ñi nga xamante ni yàlla baaxee na leen ci ay taw bi ak bu rëy waaye bokk na ci la seen gën a rëy mooy mooy yaayu loolu rek kenn ku ci nekk ci nga ma ci bàyyi ka nga wax ci sax Masa mau program begitu? Untuk kita tertarik. Karena yang kayak kayak saya kenal itu, itu teman jiwo, teman inovator, saya buat kopi ada lagi ngomong, yang tanya yang udah kenal itu lebih jiwa terputar kembali. Jadi mengenal dua orang jiwa, karena lima orang. Sebenarnya kita bayar nih, Allah yang lebih ini kalau kita menginginkan dan meminta khair. وجعلكم من الله خير قبله وخمه كلام ليه وكلمة ليه تعرف لأن الله ما يخير فإذا انتحل اليوم بسفرة ها اليوم بارك الله اليوم بارك الناس لكن جاية salam kafir salam bom lukat bom ah berusaha ah jadi itu mengenai sekali baik malam ci ko lool te fekk naa di ñëw ah kay li ma toll ba njëkk rek di ma toll ma ne woon bu fekkee da ngay ji leen da ngay am saw nag fekk tool ba xet na nga ñëw fay gis nga ñi daal moom mën na yàlla sax rek wala dara bu tey bu yàqu ci dara bi jigéen ñi da ngaa yaakaar day jóge ba la ñëw rek dana dana ngay tax naan doom rek doom ci yàlla nag yow ngay doom te dina am na yoo xamante ni ñu seer na xaray soo ci gis sonn roxal boppam nangu luñ nangu ci nii dinaa koy faral di wax sama may ma ne leen gis nga kër baay dafa am nguur amul mbaadoo kër baay daa amul nguur amul mbaadoo su seen yaay séytee nangoo lépp mbaadoo la it say doom bu ñu màggee ñoo nekk parce que xamoo seen jëm jëm seen yaay day ñëw jël mbaadoo rek ngir bu ay doomam màggee nekk nguur yi waaye bu fekkee jigéen ji daal ñëw ba ci jëm nguur yi ay doomam màggee la gën a dundee jëm wax dëgg jigéen lan nga sol bu ñëpp yërëm ko mu xëy sottee ko ñëpp yërëm moo tax yéen ngi jigéen nekk ci ay bànneex ci doga xëy xëy ay doomam lakkal ba daanaka jël samoro lu sàkkira moo tax fekk nag suñu borom ay def na dafa yéen daane loolu day baal nga am de gis nga lii ay léeb la yu mag yi wax waaye léeb yi moom du ay léeb la ci yëpp waaye léeb bu nàkka la yaa si mooy li am rek jigéen ñi faw ñu xam nangu suñu borom góorgóorlu ah bu fekkee ne muñ dafa asalee ne muñ bu ma waxee lu ko metti muñ ah jigéen daan toog ba xam ne xaalis bu jër ci dugal loxo la ak lu ñu ñaax di ko fëtt di ko suba ndaw di ko jégal ko ci ndaw di la wax nii xam na de li ma gën a wax wala ndaw di ko jégal waaw sax daal di téeméer yi wax xanaa mën nga taal ma kay mën nga taal naa la kay jeex na waaye pour wan la ñu ci ñu ci ñoom benn ñaan na te xam nga dama jël jigéen ñi mag ma jéego dafa baal ko jigéen ñi fi laa kan dégg la ñaan lool kare ñaan lu tax dañ doon ngir ñu mel ni mel na ñii soo xam ne ni borom kër dëkku ci àll ni kër di wax wax sa bu jëm sa rek daa di jëkk rek loolu war a ngeen gis jigéen gis jigéen di daaw jaar ci suñu borom sëriñ bi yooyu ngay dégg loolu ay mbir la yoo xam ne moo ala woon ci jàng jafe waaye jigéen yoo xam ne dafa dam ñaaral ji dem bëgg nekk buur ci kër gi def comme ni ko wala bu waxee jabari naa xam ngeen nekk den naan ak daare sa bi teewee bu la yàlla mayee lu baax rek xanaa ngaa fekk yàlla yàlla sa borom kër yi bu baax waaye loolu yaakaar rek am lay xaar yaayam dafa liggéey ak baayam xam nga lii ma wax leen boo ko xoolee jigéen bi liggéey moo ko def jigéen bi liggéey moo ko def ci la tomb bi tomb la boo xam ne bu ñu def bu ñu si ñu def ci bu ma cee lii mooy li ñuy dund daal lii mooy li ñuy dund jigéen ñi xam nañ ko góor ñi xam nañ ko dina na mor gi nag xam na xam nga rek nit ñi mu ne lépp naa yàq yu baax nga ba léegi yu baax yu nangu ñu ngi yoo xamante ni damay ko xëy yàq yooyu dafay def jeexintal ci nit li muy am ak bala du faj yëpp ndax loolu la baax yi c'est-à-dire dina am dañuy dañuy am activité pour nit ki bari yu baax mooy loolu gën a gën a xam ngeen ne borom faa la borom kër gi dina féetal ni suñu wax loolu lu dul maanaam ko loolu loolu loolu loolu diplôme nit yóbbu na yóbbu na ci kanam suñu borom diplôme xaalis bi bu gën a rëy amul dara boo baaxoo ne jaamu yàlla la wér إيمان بين الآخرة هل يبين يقولون أي امرأة مات وزوجها عن عن لو قالوا لي إن هذا كان يسجني ما فكان غير قولي فلسجني ما أنا كان لو ما في لواء أي أمر سنيان المهمة إلا بلا كان سنيان المهمة بيوم كان يقول لها أنت ما يقول يقول كان يقول لك يا الله يا الله يا الله xoolal xanaa si loolu loolu ci biir war na ko bàyyi xel ah su borom gën a te yàlla baax na yàlla yàlla jërëm te yàlla loolu nam la yéen bi nee na sama waa maa ngi su ngeen amee néew ngeen di leen lu baax parce que li ngeen di wax xanaa ngeen ci def bi ngeen amee su borom bi ah ne moom su fekkee ñu koy wax ne jullit lañu gën lan la ñu wax mu nekk waaw su borom gën yàlla yàlla yërëm ko rek yàlla yàlla yàlla yërëm ko rek ñu gën a nekk ñu ne boobu nekk wala déedéet lu baax lu baax loolu day dalal xelu nit ñi te loolu yonent bi moo ko ñàkk ne kuulu xayra daw wax leen lu baax loo xam lu baax wax ko di dund moom ngay dal waaye lu baax la wax wala xool wax na ni gën a gën a bëri gën a jàmbaar nangu ko mu ñëw ko yëkkal ko mu ñëw ko nangul ko suñu borom muy doom barkeel nga gis yéen ko ci saxaaba yi nga xam ne ñooñu si def loolu bu mu xas nee nag moom it dafa am ci daan boo xamante ni dara dafa mooy yàlla dafa def li nga xamante ni toll na ci kër gi dina damaa romb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ma romb yonente bi ma xoolee rek ci yonente bi muuñu reetaan ni ah amul xam si yow de moom xam ne lan la xam lu ومن فضل من الملك وهو الملك ان شاء الله بامره فينزل لكم مؤيد من العالمين طيب انك حامل بغلام هذه وكان في غدر يبدو جيجين يقول لي دوني ولي غدر يبدو مريض بن هذا مجنان عليه الصلاة والسلام لأن بمحمد دوام ولا يمكن الله يكفر لأن بجلد هذا المجنان defal nañu ci benn tox boo xam daal mooy jël tàndarma yéey ko def ko jeex na amul baax amul bala amul yaasin amul génn seen amul nag amul génn loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di muuñ li mu muuñee daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy Abbas nee na bi mu yegg ci Abbas daal di commencé na ne ay waay waay man baax waay waay waaye ay liggéey ak yooyu mu jëru lox mu ne ko xaar kay danaa ko wax ndax ku am taali maa ko di xaar taay bii ni wax nag ko wax la rek li ngay xaar day wax xaar ñu sama ndajaay wax ñu jaay ñu baaxee ni ñu jaay ñi ñëwal bu mu am li yaay mel sama ndajaay rek ñëwal waaye loolu gis bi gi jaay bi mooy tawa ko na bi jaay bi waaw wallahi da ko xaar ay na xaar nit la woon boo xam ne nii moom naa leen fël ko xam ko tàngoo xanaa yéen a ngi ko leneen moom la muurul moom la waaw xanaa yéen a ngi moom li nga xam ne moom la ñu baaxee day dama xanaa yéen a ngi nii moom la ñu ko xam ne dama naa ay daal dama su ma si lu lu la ko bakkan melo lu xëy fan ko amee lu muy xëy naa ko gàmbal yéen jaman dama amee def xam naa ko ko demee dem ah day dal yow li la dal am na ma ko def lu muy def dama dem wuti lu may liggéey ah daal di boo xam ne yow daanaka yow dara ñu laa far sax léegi maa ngi nekkal ni ko danga sax xal yi yéen yi may wax bakkat loolu may wax lay dem naa yéen tàmbal liggéey après bu xew yaa ngi ne yaa ngi ne lay dem liggéey am rek nga xam ne léegi nekk leen yàgg bu leen di dem ca àll ba moom xaaral ndox ka dem ka dem ak ci yi boyal ko ak ci ak ci ñu ne ko xool ni léegi dina ko dama nekk bakkan bi naan ma xama wala gaay rek ci li nga gën a tàng yi li nga gën a tàng ñoom ñëpp di ñëw ci yow li nga amir mu liggéey mu ne sama xam-xam yi commencé sax tax ma ko xaar ak yan la xaar ndox ma dem sama Allah akbar dem fekk Abu Ubayda Ali ibn Jarrah dama ci naqli Omar ko jooroon na ma sha Allah ko xale am doole mu war ci maam mi tax di la liggéey day nan ko way fay wax yow wàcc bi ko am wax bay da yaa ko def yow booboon naa ne ku ne may wax xale yi ba mu def ku war li ma def kon daa ko lii ko lu ci nekk yaa ngi ko dina la war laam bee moo dëgg ndax même bu ko dina la war lu laaj rek daal di lay kon ñii noonu moo am laay xam naa yàlla war na dëgg ci nga xamante ni mooy am laa yéen a yaa ngi koy ñaanal allahuma fasiru fi diin wa allimhu tawil su borom yàlla na ko yàlla حمله فيه وعلى الحمد والراسخون في العلم يقولون آمنا به ويدرك له المعنى من الراسخين yàlla ñi muy fekk ni ñoom ñoo ñu tuut xam-xam nga xam ni yi jëlee ci xam ci alquran ñoom dañ koy xam li man ca laa ko Abdoulaye bin Abbas asal ku ko ñu ngi jéem a taxaw boobu ci Abdoulaye ibn Abbas xëy na mbir bii di ñëw danañ wax ngëneel yi nga xamante ni am na ko moom Abdoulaye ibn Abbas ak yi nga xamante ni mooy jago yi nga xam ne yonent bi jagleel na ko sallallahu alayhi wa sallam ci ñaar ak yi nga xamante ni ko wala yooyu rek ñu ngi ñaan suñu am lu leen loolu di umma bi ca na nga xamante ni noonu la ñu def nga xeral te yaay yi ndaw ñi di bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëri ñu ñaan yàlla ñu